sant jotaay bi moo ëpp cant bu ma sant la mu wees tabarakallahu wax ji dégg naa ko bu baax baax baax nee na fa tabarakallahu wax ji dégg naa ko bu baax a baax waaye alhamdulilahi rabbil alamin ma doon sama yéene la doon sama yéene. mais li doonoon yéeneen. bépp xol boo xam ne Sëriñ Tuubaa nga ci biir. bépp xol boo xam ne Sëriñ Tuubaa nga ci biir. suñ doon dindi la ci xol ba lépp jëmul ci moom. Sëriñ sunu borom dindi ca xol booba lépp lu jëmut ci moom. tolluwaay bii damay damay damay dama ci jamono yi damay wax ne li ñu war li gën ci ñun gënal sëriñ bi mooy nañu jublu yàlla tey waajal alaxira tolluwaay bii day wax ne li war ci ñun gën ci ñun te gënal sëriñ bi ci ñun nanu jublu sëriñ bi tey waajal alaxira loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin seen jataay bii nee na loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin seen jotaay bii. dama ko fekk ci yéen. nee na da koo fekk ci yéen. dara du ci dolliku dara du ci wàññi. nee na dara du ci dolliku dara du ci wàññi. jublu yàlla waajal alaxira. jublu yàlla waajal alaxira. jublu sëriñ bi jublu xasida yi. jublu sëriñ bi jublu xasida yi. mooy ma moo matal lépp loolu loolu bëgg. nee loolu mooy matal lépp muy loolu mu bëgg. yéen ci loolu rek ngeen nekk. te yéen ci loolu rek ngeen ne. kon bu may wax. nee na kon buy wax. ci jotaay ci jotaay bii. ci jotaay bii. bokku leen ci wax ji. ne bokku leen ci wax ji. ndax li ma bëgg dama ko fekk ci yéen. ndax li mu bëgg da koo fekk ci yéen ba noppi. loolu nag sëriñ bee. nee na loolu nag sëriñ bee. mën a bëggal ab jaam. loolu du hmm. bokk ci jaam yàlla yi. lu nit mën a bëggal ab jaam bu bokk ci jaam yàlla yi. la sëriñ bi bëggal jaam yàlla yi moo ko ëpp. la sëriñ bi bëggal jaam yàlla yi moo ko ëpp. te danaa di wax ne sëriñ bi de fàggu na lépp. te jubóo na ceeg boromam. te jubóo na ceeg boromam. waaye yéen de li ma leen di kañe. waaye yéen li mu leen di kañe. mooy nekk leen ci li ngeen nekk rek. mooy nekk leen ci li nekk rek. ni ko sëriñ bi bëggee. ni ko sëriñ bi bëggee. daf koo def ci yéen. daf koo def ci yéen. da koo def ci sëriñ Hamza mais. da koo def ci sëriñ Male. def ko ci yéen. def ko ci yéen. boole leen moom. boole leen ak moom. rek la demee. rek la waaye du loo xam ne lu lu lu lu am bi sëriñ Tuubaa la. nee na loo xam ne lu dul pàgguteefu Sëriñ Tuuba. pàgguteefu Sëriñ Tuuba la. pàgguteefu Sëriñ Tuuba la. ànd bi ngeen ànd ak Sëriñ Hamza. seen ànd bi ngeen am ak ànd ak Sëriñ Hamza. taxawaay bi ngeen taxaw ci xasaayid bi. ak taxawaay bi ngeen taxaw ci xasaayid bi. te la ko jiitu mooy bëgg Sëriñ Tuuba ba jeex ba jeex ci tàkk. te la ko jiitu mooy bëgg Sëriñ Tuuba ba jeex ci tàkk. moo tuddee seen ndey seen mais loolu day seen xaas rek. tawfeex ju ànd ak xaas la. tawfeex ju ànd ak xaas la. ànd ak itam pàgguteefu sëriñ bi. àndoo itam ak pàgguteefu sëriñ bi. ànd ak di di di tànnam tànnam boole ci. ànd ak muy ak tànnam boole ci. loolu rek la kon li may wax yéen boole may wax boole wu leen. nee kon moom li muy wax boole wu leen ci yéen. damay dama leen jël misaal. mais day jël ci yéen kay misaal rek. nu bokk jotaay nun. mais nu bokk may wax da leen def leen misaal. nee na buy wax def leen misaal. loolu mooy wax ne nan tolluwaay bi lu jot na jublu yàlla te waaj a alaaxira. ah loolu bi luy jot jot na nañ jublu yàlla te waaj a alaaxira. bu ma koy wax. nee bu koy wax. man mee ak sama bokki taalibe bi yëpp. mu moo tax ak bokki taalibe bi waaye yéen boole wu ma leen ci de. nee na boole wu leen. ndax yéen a ngi ci. ndax yéen a ngi ci dama leen ci teg. da leen cee teg. yéen a ma ci jiitu sax. nee na yéen a ma ci jiitu. te gën a yëg gi yëg gi ak yéene ji ak bëgg gi. nee na yëg gi ak bëgg gi ak yéene ji. noo noo koy mas ànd. noo ko yéen a ko mas di ànd. waaye fii ma toll. waaye fii mu toll. baat boobu ma wax. baat boobu mu wax. luy jot jot na. luy jot jot na. nan jublu yàlla. nan jublu yàlla. te waajal àllaaxira. te waajal àllaaxira. jublu yàlla nag. jublu yàlla nag. waajal alaaxira waajal alaaxira lépp mi ngi ci jublu sëriñ bi lépp mi ngi ci jublu sëriñ bi di di ko ci xasaa yi yii te di ko liggéeyal ci xasaa itam yii loolu mooy jublu yàlla waajal alaaxira nee lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir jublu sëriñ Tuubaa fonk fonkol ko xasaa itam yi te na ci jublu Serigne Touba sonkol xasaay itam yi itam nekk Böyle doy na lépp Böyle ak ëllëg. doy Lip lépp tey ak ëllëg. Lip sëriñ bi fàggu na ko ci. lépp sëriñ bi fàggu na ko ci. te itam képp bépp jaam boo xam ne suñu borom tawfeexal na la. te itam bépp jaam boo xam ne suñu borom tawfeexal na la. gindi la ci sëriñ gindi la ci sëriñ nga jublu sëriñ bi. nga jublu sëriñ bi. nekkal ko ci lim bëgg. nekkal ko ci li bëgg. sa sa sa sa léppi tey ak ëllëg defaru na ba noppi. sa léppi tey ak ëllëg defaru na ba noppi. kon sama bokki taalibe yi. nee na kon ñun bokki taalibe yi. wax boobu. wax boobu. maa ngi yéen ko bokk. nee na moo nun noo ko bokk. luy jot jot na. luy jot jot na. ci nitu Serigne Touba. ci liggéeyu Serigne Touba. nan dellu jëm jëm jëm jëm gën a jëm ci moom. nan jóg gën a jëm ci moom. bu ñu jëmee ci moom. bu ñu jëmee ci moom. sunu wàccaayu alaaxira mat na. sunu wàccaayu alaaxira mat na. sëkk. sëkk. kon nan jëm nan jëm nan jëm ci moom rek. kon nan jëm ci moom rek. te te te te te gën koo fas yéene yoral liggéeyam bii te gën koo fas yéene yoral liggéeyam bii liggéey bi nag yaatu na ndax lépp yiwu àdduna ak alaxira mi ngi ci biir bi liggéey bi nag yaatu na lool ndax lépp yiwu àdduna lépp yiwu alaxira mi ngi ci biir liggéey bi waaye nag di ko liggéeyal ci xasaayit yii waaye nag di ko ci xasaayit yii la jiitu nga bëgg ko ba jeex ba jeex ba bëgg ko ba sa ba sa xol jeex ci tàkk te la jiitu mooy nga bëgg ko ba sa xol jeex ci tàkk nga bëgg xasida yi bëgg gu wóor a wóor a wóor bëgg xasida yi bëgg gu wóor a wóor a wóor jëm nekk sax nekk ci bi nekkal ci sëriñ bi loolu bu kon yéen sama bokki taalibe yi. kon nee na yéen bokki taalibe ah, bu nu ci kenn mag. nee na bu nu ci kenn mag. nii sëñ Hamza du taxawee de. nii sëñ Hamza du taxawee. ànd ko bokk bokk yii. ànd ko bokk bokk yii. ñun ñëpp la war. ñun ñëpp la wax. loolu ndax dara jigunu lu loolu. ndax dara jigunu lu loolu. dara gënul ci ñun lu loolu. dara gënul ci ñun lu loolu. dara noppalu lu loolu. dara noppalu lu loolu. dara genn texe eh, aj aj aj ajjana sax aggul aggul foofu. nee na genn texe ajjana sax aggul. gaa yi yàlla yi moom loolu leer na. nee na gaa yi yàlla yi moom loolu leer na. ngërëmal yàlla moo leen dàqal ajjana. ngërëmul yàlla moo leen dàqal ajjana. kon nag jeex ci sëñ bu tàkk. kon jeex ci sëriñ bi tàgg. nekk ci bëggam. nekk ci bëggam. di dund sëriñ bi. di dund sëriñ bi. moo tax loolu moo tax xaajal. sëriñ Saalihu mu ndaw mii sama doom bu baax ji. nee na sëriñ Saalihu mu ndaw mii doomam bu baax ji. day ñaan ba am ñaan ku mu nee na ca da ko doon ñaan waaye fa saasa laa tàggul sama sago. waaye nag fa saasa tàggul sama. ndax dama ne. nee dama ne. liggéey liggéey sëñ Tuubaa bii yàlla yàlla ci yow. dafa ne na ñoo ngi ci ma ne ko man loolu kon man man waaye bu ma ko amoon.

nee kon bokki taalibe mi. sunuy royukaay ngi nii. sunuy royukaay ngi nii. mag yéen. moom noonu. ñii kat man am naa yàqin ci ñoom. nee ñii kat moom am na yàqin ci ñoom. bëgg gi ñu bëgg Sëriñ Tuubaa. bëgg gi ñu bëgg Sëriñ Tuubaa. dëddu lépp jëm ci. dëddu lépp jëm ci. di dundee xasaay di. di dunde xasaay di. man de sama xel dal na ci ñoom. nee na xelam dal na ci ñoom ci ñoom. nee na am na yàqin ci ñoom li ma bëgg yi am na am na yàqin ci moom am nañu am am nañu ko. nee na moom li mu bëgg moom am na yàqin ci ñoom ñii am na bëgg rek di xaw am naa ko nee na da koy bëgg rek di ko wut xam am na ko te yéene ko nag bépp xol boo xam ne sëñ Tuubaa ngi ci sa biir xol te yéene ko nag bépp xol boo xam ne sëñ Tuubaa loolu moom mooy mooy sama yitte nee na loolu mooy yitteem loolu ma sëñ Saliou wax nee na loolu ko sëñ Saliou wax liggéey sëñ Tuubaa bi ñoo ngi ci man liggéeyam Serigne Touba bii ñoom ne ci moom. loolu boo boo ko am boo ko amoon. nee na loolu bu ko amoon. bay boo suñu borom soppi ma may suuf. nee na bay boo suñu borom def. soxlaatuma dara soxlaatuma ajjee soxlaatuma. nee na boobaa soxlaatul dara la mu bëgg am na ko. loolu foofu foofu la ma sëriñ bi toll. nee na foofu la ma yéen ak ku demee ni ki yéen. yéen rek laa ciy def sama laa ciy def ay ndaw la. te nee na yéen ak ñu demee yéen. yéen rek lay def ay naaw la juróom yéen laa ciy def sama soññ. yéen la ciy def it ab soññam. yéen laa ciy dalaleem xel. nee na yéen la ciy dalalee am xel. kon loolu sama bokki taalibe yëpp. nee na loolu kon ñun bokki taalibe yëpp. nañu ko xam. nañu ko xame noonu. bu nu ci kenn mag. bu nu ci kenn mag. sëñ Hamza mii. sëñ Hamza mii. ak bokkam yii. ak bokkam yii. ak nii ñu nii ñu àndee. ak nii ñu àndee. ak nii ñu doxee. ak nii ñu doxee te lépp lépp sëñ Tuubaa rek a tax. te lépp sëñ Tuubaa rek a tax. nan xool ci ñoom. nee na nan xool ci ñoom li nu li loolu la sëñ bëgg ci ñun. nee na loolu la sëriñ bi bëgg ci ñun. loolu it ak baaxam rek. nee na loolu it ak baaxam rek. dara andi ko fi wan nit ñi nañuy nañuy wéetali suñu borom. nee bi dara andi wu ko fi lu dul wan nit ñi nu ñuy wéetali suñu borom. nu ñuy jaamoo suñu borom. ni ñuy jaamoo suñu borom. ni ñuy ndigal. ni ñuy toppee ndigal. ànd ko yonent bi. ànd ko yonent bi. loolu mooy di ko fi indi. Eh, loolu mooy li fi indi. ak itam baaxam bu rëy. ak itam baaxam sëriñ bi bu rëy. bëgg sooy jaam ñëpp. bëgg soowee jaam ñëpp. bëgg musal jaam ñëpp. bëgg musal jaam ñëpp. loolu képp ku fi indi. Eh, loolu rek moo fi indi sëriñ bi. noppi na. kon sëriñ bi noppi la. li mu bëgg doon bëgg man moo def ci moom lépp defoon na ko ci moom. nee eh, na lam su moom def ci moom borom bëggoon def ci moom lépp. ba mu daataa ñëw. ba mu daataa ñëw su moom def ci moom lépp. loolu loolu du feeñ. nee na jaamu si boromam rek. nee na jaamu si boromam rek. liggéey si yonent bi rek. ak liggéey liggéeyal si yërëm jaam ñi rek yërëm jaam ñi rek di leen di xamal seen borom di leen xamal seen borom di leen wommat jëme leen seen borom di leen wommat jëme leen seen borom loolu ko fi indi woon loolu rek moo fi indi woon sëriñ waaye xanaa dana ko war a dana ko war a nag dana ko war a jox njukkal waaye nee na nag dana war a jox sëriñ bi njukkal suñu kem kàttan suñu kem kàttan ne moom ak ak ak ak baaxam ëpp ëpp nañu. ne moom ak baaxam ëpp nañu. waaye nag. waaye nag. ñun ci suñu bopp. ñun mu suñu bopp. noo ko noo ko noo war a xam sëriñ bi. noo war a xam sëriñ bi. noo ko war a noo ko war a sant. noo ko war a sant. cant gi mooy jéem koo liggéeyal. cant gi mooy jéem koo liggéeyal. loolu rek lañ ko mën a sant. loolu rek lañ ko mën a sant. te mënuñu koo sant lenn. te mënuñu koo sant lenn. lu toll ne nan ko nan nan nan nan ko war a sante. lu toll ne nan ko war a sante. lu dul bëggal ko li mu bëgg rek. lu dul bëggal ko li mu bëgg rek. nekkal ko ci li mu bëgg. nekkal ko ci loolu moom lan ko mën a sant. nee na loolu rek lan ko mën a sante. waaye ñun mayu sëriñ bi. waaye ñun mayu sëriñ bi. ëpp ëpp nañu ëpp nañu ay téeméeri yoon. ëpp nanu ay téeméeri yoon. waaye nag dafa am lu war. doomu aadama. doomu aadama. da kon war nañoo xam dara suñu bopp. kon war nañoo xam dara suñu bopp. war nañoo jéem a am jom. war nañoo jéem a am jom. war nañoo jéem a am ngor. war nañoo jéem a am ngor. lépp ñu jaay jaay jaay jaayaat ko sëriñ sëriñ bi. lépp ñu jaayaat ko loolu xëy na mënut a mënut a dab cant gën ko war a a dab sax cant gën ko sant. waaye loolu moom mooy suñu wartif. waaye loolu moom mooy suñu wartif. te tedd nga doomu aadama ji ko yàlla defal. doomu aadama war a war a am jom war a am ngor. a am jom war am ngor. kon. suñu jom ak suñu ngor ak ko war bi. a jox sëñ ko ko koo sante. noonu la demee. noonu rek mooy loolu. nee na tolluwaay bi daal jot jot na. na. nañ jublu suñu borom. nañ jublu suñu borom. te waajal àlla. te waajal koy mën a nag. lanu mën a nag. mu jublu sëriñ bi. mu jublu sëriñ bi. nekkal ko. te nekkal ko. loolu suñu suñu yiwu àdduna ak àllaaxira yëpp ngi si biir. loolu suñu yiwu àdduna ak àllaaxira lépp mooy si biir. noonu rek la dem. naan noonu rek la dem. kon nag maa ngi koy maa ngi koy koy dolli moom ak ñun bokki taalibe bi yëpp. moom sëriñ bi noppi na. nee na sëriñ bi moom noppi na. ku jekku mbiram la ku jekku mbiram la moom sëriñ bi kon euh, kenn ku ne ci noonu kenn ku nekk ci noonu da ko da dafa war a da ko war a da ko war a jéem a jox njugalam rek dama comité moom daa war a jéem a jox sëriñ bi njukkalam rek. tey. tey wane na démb wane na démb. sëriñ ba mu ñëwee. sëriñ bi wane na démb. ba mu ñëwee tolluwaay na ko ñëpp xam nañ. tolluwaay bi wane na ko ñëpp xam. ña àndal nag moom. ña nag moom. génn nañ ci lépp. génnoon nañ ci lépp. jox ko seen lépp. jox ko seen lépp. nekkal ci na mu ko bëggee. nekkal ci na ko bëggee. loolu nag. loolu nag. xëy na du ñun ñëpp. xëy na du ñun ñëpp. du woon boobu ñëpp. du woon boobu ñëpp. tey jii tey jii itam. am na ñu yoo xam ne ci pàggu teefam lañ bokk. am na ñoo xam ne ci pàggu teefam lañ bokk. ñoo xam ne moom moom rek lañu nekkal. ñoo xam ne sëriñ bi rek lañu nekkal. mandi di jàpp leen tayal jàpp leen. nee na mandi de jàpp leen tayal it jàpp leen. ñu ngi ci rek li sëriñ bi bëgg. ñu ngi ci rek li sëriñ bi bëgg loolu na mu amee woon bu njëkk. mais loolu na mu amee woon bu njëkk. am am na am na am na na mu ko bëgg ci ci ci jamono ji. noonu it am na am na am na ñoo xam ne am na ci ñoom na mu ko bëgg ci jamono ji. xanaa kay ñi àggul foofu sam ci saamaas gi. nee na xanaa kay ñi àggul foofu nun ñii. noo kon noo nun noo war a xam li xew. kon nun noo war a xam li xew. noo war a xam sëriñ bi. nun noo war a xam sëriñ bi. war war war war war war war war ko war ko jox suñu lépp. war koo jox suñu lépp. nekkal ko ci suñ ci ci ci ci suñ lépp. nekkal ko ci suñu loolu loolu ko war a xamee noonu ne loolu mooy yoon bi. loolu da nga koo a xamee noonu ne loolu yi mooy yoon. mooy yoonu mooy yoonu jariñu ci sëñ bi. mooy yoonu jariñu ci sëñ bi. am chance euh, bokk bokk ci sëñ bi moom fa tabaarakallaahu man na ba noppi. nee bokk ci sëriñ bi moom mën naa yaatu ndax xol bu bëgg sëriñ Tuubaa rek na ba waaye. waaye ànd ak moom. waaye ànd ak moom. mu gàttandu laa mu gàttandu laa ak ngërëmam. ànd yow ngërëm loolee. ànd ak yow ngërëm moom loolee. fii ba ba fanu tax a jóg. fii ba fanu tax a jóg. Ah, loolu caaxaan du ko maye. loolu caaxaan du ko maye. mën ngaa mucc moom. mën ngaa mucc. mën nañ laa ram. mën nañ laa ram itam. loolu mën naa nekk na tool soxna sëñ bi noppi na ci. waaw loolu sëñ bi noppi na ci. waaye nag am am itte yi bëgg a bokk ci mbooloom boppam ni mu tànn. waaye nag am yitte yi bëgg a bokk ci mboolu boppam mi mu tànn ñoo ko ñoo jeex ci moom takk ñi xam ne ñoo jeex ci moom takk wan gannaaw lépp wan gannaaw lépp nekkal ko ba jeex takk nekkal ko ba jeex takk loolu kenn ku ne ci noonu loolu kenn ku ne ci noonu war ko jombale sa bopp war na ko jombale sa bopp ak lu mu jafe-jafe ak lu mu jafe-jafe soobul rek soobul rek te muy dëgg ci yow te muy dëgg ci noonu bu ko defee dañ lay gàttandu bu defee ñu gàttandu dañ ñuy gàttandu loolu nag ñii tax taxu may wax. naan ah, dañ ñuy gàttandu. waaye ñii ñoom taxuñu muy wax bëgg si bëgg ñu ngi ci. ñoom li sëriñ bëgg ñu taxuñu may wax. nee na ñoom taxul ñuy wax. dama bëgg nu nu def leen ab royukaay. Ah, dëddu lépp ci suñu xol. mu dëddu dëddu lépp ci suñu xol. leeral leer lépp suñu xel. leerlu lépp ci suñu xel. bu nu gis dara lu dul yàlla. bu nu gis dara lu dul yàlla. lu nekk nekk ci dara lu lu neex yàlla. loolu nag nekk sëriñ bi rek ko mën a lool loolu nag nekk sëriñ bi rek ko mën a may. fa la gën a yombee. fa la gën a yombee nee fa la gën a yombee de nekkal sëriñ bi rek. kon kon nag nañu góor kon nag nañu góorgóorlu. maag sama bokki bi yëpp. man nii ak suñu bokki taalibe bi. boo boo defee ni man. bu ñu defee bu ñu jéemee def ni moom. seet sunu bopp. xam ne li ñuy nekk nekkul ci. xam ne lii ñii li ñu nekk nekkuñu ci. waaw ah, delloo sa bopp. nu delloo ci sunu bopp. yoon bi rek moo nekk. xam ne lii mooy yoon. du wàññi dara ci di adduna. mais du wàññi dara. nekk nekk ci loolu. nekk ci loolu. du wàññi kenn dara. du wàññi kenn dara. du du tee sol mbubb. du tee sol mbubb. du su nekk ci am kër. du dee am kër. du dee denc soxna. du dee denc soxna. du dee lekk lu neex. du dee lekk lu neex. lu ayut. lu ayut. loolu ki yëfër bi amu ci amu amu ci àdduna lépp loolu. nee na yëfër bi amu ci àdduna lépp loolu. te loolu loolu loolu moom tabiya la rek dañ dañ dañ ci dund gi rek la bokk. te loolu moom daa bokk ci dund gi rek. du du du dara. du ah, dara kooku jërul waaye boo xamee boo boo boo lépp loolee nag yow gisoo gisoo yàlla gisoo gisoo sëriñ bi gisoo dara lu du adduna sii rek. waaw ñu adduna bi sii rek dañ dañ jeeg jege xeet xëccoo geeg xeet xeet yooyu yëpp wax nañu yëpp mi ngi ci biir loolu. waaw waaye boo xam ne gisoo seetoo yàlla seetoo dara lu adduna si rek ak xëccoo adduna si rek ak bon bon yëpp. mu daje ci biir loola. du dara. loolu du dara. bàyyi mayi sax li mooy dama ngaa dem ba bàyyi mayi tànn. boobaa nit ki mën naa dem sax ba bàyyi mayi tànn. ndax bàyyi mayi li ñu bëgg ñu ngi koy am ñu ngi lekk di naan. ndax bàyyi mayi li ñu bëgg ñu ngi koy am ñu ngi lekk di naan ñu ngi leen di toppatoo ñu ngi leen di toppatoo. ñu ngi leen di toppatoo. njaay yàlla yi ci àll bi yàlla moo leen di wërsëgal. njaay yàlla yi nekk ci àll ba sax yàlla leen di wërsëgal. njaay yàlla yi ci àll ba boo ci seetee andi fii ci andi ko ci bëy yee xar yi mun xar mun ci toppatool wala ñu toppatool bu wér a wér yàlla rek jóge ci àll ba moo lay gën a suur fuuf daf na boo jëlewoon ngaa yàlla ci àll ba andiko ci dëkk bi dem na la ko bëyee xar yi nga xam ne ñu ngi leen toppatoo waxtu bu nekk bu fekkee yéen ñi toppatoo toppatoo ba sonn ñu sax ñaa yàlla bu jóge ci àll ba bu gën a suur daal te loolu mooy adduna rek te loolu mooy adduna amul benn maanaam maanaam amul benn maanaam ku ci nekkoon nañ ko bëggee bëgg téeméeri at wala lu ba jóge fii itam ku ci nekkoon téeméeri wala lu ko ba jóge fii itam fekkee ne ci dund àdduna rek nga doon na ci dund àdduna la pertement bu rëy di bëgg mos mos mosoo ko am na nga ko bëgg mukk ndax li nga doon bëgg ba sa am léegi mosoo ko amee nag loo fi yàgg yàgg yàgg loo bëgg la doo ko am doo ko am ba ba jóge laa xamoon ba xam ne am nga xam li xew. ah ma ne woon gannaaw sama bopp ndax bon bon yëpp ngi si biir bi biir. mën a woon gannaaw ak mën a woon lépp jublu jublu jublu yàlla loolu loolu loolu loolu taxee foofu lay tàmbalee. waaye comme alhamdulilah mu a ko yàlla dimbale ba ba nga mën a gis xam sa bopp maanaam woon ginnaaw àdduna maanaam woon bon bon yëpp jublu yàlla. dana foofu la taxe tàmbalee. a neex ngay na boobaa dund neex a neex ngay dund. dund gu noppalee noppalee noppalee. dund gu noppalee ngay dund. dund gu rafet rafet ngay dund. dund rafet rafet ngay dund. dund yiw ngay dund. dund yiw ngay dund. loolu nag ak seen bopp am na ñoo xam ne mos nañ loolu. loolu nag seen bopp am na ci ñoo xam ne mos nañ loolu. nee na loolu. ku nekk ci li ngeen nekk am na loo am nga yëqin ji am nga loo mos yéen nee na yéen ñii xam ngeen ne am na ci yéen ñoo xam ne xam nañ ne xam nañ moom xam na ne am na ci yéen ñu xam ne li muy wax mos nañ ko xam nañ ko itam waaye nag koo xam ne adduna adduna rek ngay dund waaye koo xam ne nag dund ak dong ngay dund mbooleem xeeti naqar yi yëpp dund moom ci ngay dund mboolem xeeti naqar yi yëpp jafee dund. loolu noppalu. te loolu noppalu. doo am da nga bëgg. moom àdduna bëgg sax doo ko def ndax. bëgg sax doo ko def. loolu gan taxee di moo ëpp loolu. waaw gan taxee di moo ëpp loolu. ni doomu aadama yi dundee boo ko seetee ni ñuy dundi fii nii ci àdduna bépp tubaab yi yëpp ñëpp ci am ni ñuy dundee boo ko seetee taxee eh, di rek la. Mhm. mu ne ni doomu aadama yi dundee fii nii ñëpp ci am tubaab yi ñëpp taxee di rek la. lu compte bi bëri bëri bëri ci banque bi. loolu étage yi gudd gudd gudd. lu complet yi bare étage yi lu ñu rafet rafet. lu soxla yi baax baax baax. lu soxla yi baax baax. dara doo taxam jàmm. nee ah, ko jar. te boo jubloo yàlla moom. te boo jubloo yàlla nag. te muy dëgg ci yow. te moo jublu sëriñ bi. Mhm. te mooy jublu sëriñ maanaam moo moo dama ne moo jublu sëriñ bi. moo jublu dëgg ci yow. sëriñ bi di dëgg ci ngay dund sëriñ bi. ngay dund sëriñ bi. yow loolu gan gante xamuñ ko loolu gan joxe ndax ñiy dang dangi seen adduna lu ñu am mën nga ko am du tey ñiy dang dangi seen adduna lu ñu am rek mën nañ ko am mën nga ko am te du la yàqal dara yow tamit diggante sa borom du la yàqal dara sa diggante ak àlla yaa ngi dund yow leer na nañ am am nga mos nga loo xam ne xam nga ne lii moom mos doon lay doon xam nga ci yàlla xam nga ne mos nga loo xam ne xam nga lii mos dara waaye ku toog ne tekk ci adduna yi waaye ku toll tekki ci at bu jot. ak foo ci mën a toll. ak foo ci mën a toll. xam nga ne li nga mos neexul. xam nga ne li nga mos neexul. li nga mos neexul. ñun ñëpp a ceeb ñëpp. nee na ñëpp a ceeb. kenn ku ne la nga mos la nga mos ceeb du neexul. kenn ku ne la nga mos ceeb du neexul. da ngay dem ba sax ba adduna dara ja du la jaral dara nga xarul. nee na ñoom dañuy dem ba sa àdduna dootul dootul leen jaral dara. ñenn ñaa ngay jooy. ñenn ñaa ngay jooy. ñenn ñaa ngay takk rek bu ne ci dugg. ñenn ñaa ngay daw fu leen jëm. lu ne ñu dugg ci. lu leen ñu dugg tax am jàmm. lu leen tax am jàmm. waaw ah loolu jar na ko. nee na jaru ko de. loolu jaru ko waaye boo am ne xel yi nga xam yàlla suñu jox jox ko rek lu wuta ko bàyyi mi xel yooyu rek war nañ ci mën a seet ba ba xam fu ñu jaar. nee na xel bii nga xam ne yàlla dama ko jox. wuute ko bàyyi mi xel yooyu waroon cee mën a seet ba mën a xam. non non non non. mais loolu rek la ñu cee faral waaye dara yëngu yëngu daal li ñu war a wax. mais li ma cee faral waaye li ñu war a wax sax du yëngu. li mu ñëwee li mu ñëwee suñu mbokk suñu moromu jàmm. mais li mu yëngu moromu jàmm mën nañu cee faral te li li sax. faral sax du yëngu waaye lépp waaye ñun bii bi rek mooy loolu. li mu ko waxee waaye li ci daan am te nekkul leen sëkk tubaab gàllankoor. ku ko am la nga jëriñ si yàlla ci dimbali mën nga ko jëriñ. waaw xanaa ñu ñaan rek. xanaa ñu ñaan rek. waaw xanaa ñu ñaan rek. ñu si ñaan rek. man samay ñaan yëpp tàmbali rek nit ñi yëpp mooy suñu borom nanu nanu nanu nanu dolli tawfiq sëriñ bi ji mënu may. nanu suñu borom nanu koy dolli rek. amiin nee na léegi ñaan rek bëgg suñu borom dina ko dolli rek. sëñ bi gàttandul boppam. sëñ bi gàttandul boppam. gën ñoo gàttandul boppam. gën ñoo gàttandul boppam. wombatal ñu boppam. te wombatal ñu boppam. te wombatal ñu boppam. loolu mooy sama ñaan. nee na loolu moo di ñaanal.

أما قصيدة جوا خالد بنت لما لن تكمل جوا خمر منا عليا بعلوم وعمل بالبنتقى ولي يكمل الأمل يا إله الله الحمد لله كنت بقول لك يا رجل من يوالي سوى قد يوالي لولي مولاني أنا ما ينفعو من يبقى دالو من يبقى دالو Mip, mip. Bismillah.